Balla gay numéro 2 ak satis ño ñoo bokk ndey ak baye parce que fani di nga ji te lepp likoy faral di yok rek pour man euh, dama nan ah ñi ci seen yon nekul souvent la tax bo bokke ña fekke ñaar ñu bokk nday ak baye defé naa ne la ca war rek moy jima bolé jim leena conseiller nu ñuy def ba and ndax nak olof ne na ngon la ku tool ñooy muju kañ yi xam nga digënté Balla gay ak satis Thiès mhm. duma wax ñi ci bokku dara Balla gay ak satis lay waxal ñoo bokk seen dubalees waaw bokk seen wayjur wu jigéen mm-hmm. te lu mën a xew ci Balla Gaye mm-hmm. buñ ñëwoon jàppale yéen jàppale naaj na balaa nit a laal Sa Thiès ak malal dañu ñëw taxaw tey mën naa neex ñëpp topp Balla mais bu naqaree Salif dong lay gis tey Sa bu dara xewoon tey balaa ñu ne kenn Balla Gaye mala lay ñëw taxaw tey mën naa neex Sénégal gépp dar Sa Thiès waaye bu naqaree Balla Gaye ak malal dong lay gis dama ne ku la génnee ci say mbokk yóbbu la ciy mbokkam bu gisee Dafam mooy la may ñu dafa am loo xam ne deret la te loolu moo gën a foor nga ko xam nga wuti Balla Gaye Sa Thiès yëg la balaa nga ko xam nga wuti Sa Thiès Balla Gaye yëg la nit ñi nag ñooy fekk diggante bu dara xajut ñu bëgg dugal dara Balla Gaye bu ko nangu Sa Thiès bu ko nangu Balla Gaye milliard defal ko Sa Thiès jërul bako. sa sa warteef la suñ borom daf ne dimbale mbokk du ndam warteef la wa atisal xurbaa axaa daf ne dimbale mbokk du ndam warteef la xam nga luy ndam dimbale koo xamante ni bi xamoo ko ci aadama ak awate bu la neexoon doo ko def Sa Thiès tarbiyewu Balla Gaye du ndam ci yow sa warteef la ndax mooy sa mag sa papa jóge fi bàyyi leen fi yéen ñaar Balla Gaye sa kilifa bu la kenn tàggaleeg moom dama ne la ñun ñii jàkkaarloog yow di wax ak yow jaar nañ fu gën a metti fii ngeen di wax tay dem nga ba mëna yor lo yilifal sa bop di dimbali ay nit yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbaate muy ku bal la yalla jox xarit ba ci maqaama soko munta jëf ci nat la koy xeyma bala la woru nag ba jox la mbir ya nga muñ yenam ba aw ci tanki bal ya dafa am lolo bu ko yalla naré jox Sa ci dafa am fum koy jaaralee xol ba xam atana na li mako ko jox muñ bang-bang yi moy tax nga am xewali digënté Sa ci ak balagay ku ci wax saytane nga sa ci bàyyi leen ñoom ñaar ñoom moom seen bërigo tiim ko di ko bërëng bu defee dara ñoo ko moom bu defu dara ñoo ko moom may conseiller Omar nag ne ko yaa jiitu ku jiitu ñooy la sa ginnaaw gu weex gi da ngay muñ di jëlale boo amee lu la naqare ci sa rakk nga jàkkaarloo ko moom ba mu ñëw ne ko yaa sa ña fekk saa Cees dugal ciib néeg dóor ba mu ne mbët bu ma la gisati ci lii bu ma la gisati ci lii te xam ne njariñam la nga waxtaan ak moom loolu kese du leneen am na solo waaw Kandji macha waxtaan wi neex na waaye xam naa léegi ñu dagg ko nag salay jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin